bokk internet yu Dakarnet ginnaaw euh, bu ñu leen nuyoo Ouzin ngeen di àndal ci seen rubrique bi nga xamante ni mu ngi tudd reportage alors reportage nag tey dañoo ñëw fi nga xamante ni moom mooy Grand Yoff ndax seetlu ngeen nii euh, fan yi ñu génn yëpp ah ba ci fan yi sax yàggul dara agression bi daf fi gën a tar sàcc bi agression bi daf fi gën a am doole ba ñuy dégg sax ci ay xibaar ak ay crime yoo xamante ni yàggul dara benn xale bu jigéen boo xamante ni ci buntu këram la ñu ko agressé ba mu si génn àdduna alors loolu nag ni ñu ñëw ngir waxtaane ko ngir laaj ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi dëkk mbir moomu naka lañ ko gisee wax ji du sori dañ leen di bàyyi ànd sama euh, frère euh, Dieye ñu dem xool gars yi lan lañu gisee ñàkk kaaraange gi am fii ci Grand Yoff dañu ne meeku ni euh, Grand Yoff jamono nii insécurité bi dafa am maanaam dafa manqué sécurité agression beeg sàcc beeg yëpp loolu yow noo ko gisee waaw loolu si waaw yàgg na fi nag may yàgg na fi may daanaka ñëpp yemuñu maanaam soo gisee loolu di faral di am comme cas de boobu faral amoon fi noonu Euh, soo gisee koo xam ne dafa am benn jikko ne ci moom mu koy doxee nga may ko liberté amaana su génnee tamit jikko boobu rek lay tegaat moo tax loolu noonu kaaboo boobu am fi mais manque de sécurité bi yàgg na fi te bëri na fi loolu maanaam dañ ciy gestuwaat rek gën a jëlaat matuwaay waaw loolu moom yàgg na Grand Yoff mais gars yi nañ si gën a jëlaat matuwaay rek su jëlee matuwaay rek dina am solution mais ki nga xam ne moom jëfiñ bu ñaaw si loolu dëkk ñu ba yàlla defoon ñu denc ko foog naa ne balaa ñu ko génn tamit dañuy xoolaat ndax jikko jooju sa dañ na ba pare ñu doo ko génne. ñàkk kaaraange gi moom kay du Grand Yoff rek fépp la fi ñu toll nii fi nekk nii ñun dañuy dox rek waaye daanaka doxanteetuñu suñu xel daal. parce que fi ñu toll nii dëkk bi temps yi doy na waar doy na waar dangay xool ki ñu rey HLM Grand Yoff ndax lan yor alalam di dem Samba booy dab ko. xam nga nangu alalam ba pare daal di koy rey xam nga ne loolu du yoon si ginnaaw fi tam boo fi tournée fii la ñu rey ñaari xale yu bokk ndey ak baay fii ci suñu ginnaaw rey gi daal bari na ñun daal ñi ngi ñaan président Macky Sall daal mu gën a yor kaaraangay réew mi comme moom la yàlla dénk réew mi daal lu ci mën rek nañu ci jàppale te yàlla tax. xanaa metti rek ñu jaaxle lool nit ñi nga xam ne ñoo sanc Grand Yoff ca jamonoy Sissoko jamono yi te Sissoko di lotu sa di jaay teene juróomi junni la fa suñu bàyyi sanc si woon Grand Yoff gu njëkk ga baax a fi amoon ak yar bu baax judd bu baax. jaamu yàlla gu wér waaye nag Grand Yoff léegi wàllu yaani dañ ñoo yàq yàqal ñu ndax da ngay doon doomu julit tàggat sa doom ci jaamu yàlla gu wér ci jullee jàpp ak julli ak woor ak def lu baax am nawle ànd ak doomu góor ñu baax ànd ak doomu nit baax du jullit kon yow nga dëkk ak say dëkkandoo njaago ñuy diine bii ñu tàggat seen doom ci yoonu bii bi yar leen ci yoonu bii bi ñu ñëw laxasoog ay yar yi nga xam ni bokkul ak yar bi leen seen di diine sant ba loolu yëpp tey yàq na juddu doom ci Grand Yoff métti na xolu waajur yi ndax képp ki nga xam ni kii rek yàlla boole na la nga am ci ku bokk ci deret jooju soxol metti na Grand Yoff moom ñàkk kaaraange bi bari na fi du ñu fi dëkk nag walyaan la ñu fi dëkk ay nit ñu baax lañ ay nit ñi am maanaa lañ ay nit ñu am dignité lañ waaye ñu fi ñëw ñoo wàll xale yi ñoo yàq xale yi li fi nekk nag dafa bari te waxu ko jaay dorog bi jaay sàngara bi borom ñaari tur yi xale yi jaay seen bopp ay doomu nit ñu baax maa ngi déglu sa début wax dafa mel ne da ngay wax ni yar bi dafa xaw a des. waaw maanaam du yar dina suñu na Grand Yoff euh, gars yi dañoo ñëw daje ko maanaam mile bi nga xam ne euh, ku dégg na Grand Yoff milieu boo xam ne liberté ku ñëw da am sa liberté ñoom ñoo ñëw daje mais newul au fond Grand Yoff ñi dëkk Grand Yoff am nañ éducation bi mais ñi jóge ailleurs autre secteur ñëw dëkk si fi ñooy dund naka su dul noonu waaw mais du Grand Yoff daal. amul kenn sa doom di ko sàggane. pourtant ñi ngi yar de c'est xam nga lan la xale yi bu ñu génnee ci mbedd bi seen yenn morom yi ñuy nekkal ñoom ñoo tax ñuy def loolu léegi gains bi bëri na ci dëkk bi xam nga naan gi bëri na ci dëkk bi loolu yëpp ci xale yi te am na loo xam ne bu ko xale ji def yaayam du ko yëg waaw xam nga ne amul kenn kuy gis sa doom muy def lu bon nga yëg ko ba pare nga ko ciy seetaan il faut nga jóg ceeg say pexe waaw mais nag yal nañu yàlla soppi daal soppi ñu suñu njaboot gi rek teg leen ci yoonu salaatal mustaqim sa doom boo ko toppee ci li ko neex bu yàggee mu def lu la neexul rek loolu rek la. lan ngay dénk euh, nguur gi lan ngay wax nguur gi ak. nguur rek yokk ñu kaaraange yokk ñu kaaraange rek ndax daal ñun ay citoyen la ñu ne ñuy yokk kaaraange. bu kaaraange amee lépp neex dañoo tiit nag fi mu ne jaaxle jonkon ñun ñëpp a jaaxle fi mu ne nii ndax boo génnee sax yow bala ngaa dem sa kër da nga yaakaar ne danañ la dab ci yoon wi te loolu yëpp ñàkk kaaraange la rek. kaaraange daal bu ñu sañoon ñu yokku ko di ñu toppatoo di ñu yokk di ñu xool ndax daal yëf yi dafa metti fi mu ne nii. suñu waajur dañu jur fu ñu war a juree yar ñu fu ñu war a yaree tàggat ñu fu ñu war a tàggatee ku ci nekk ma nga tolloo néegu sëy da nga toog sa penku ndey sa penku baay ba teraa nga fekk la ci sa penku ndey nga siggi sa ndey siggi say bàjjen waaye léegi looloo jeex Grand Yoff amatu fi ndax yar bu bon bi xale boo ci gis mi ngi jaay boppam. mi ngi def lu bon mi ngi topp agresseurs yi mi ngi topp sangara si mi ngi topp drogue bi mi ngi topp yamba bi léegi ba kenn xamatul borom waajur yu baax ak waajur yu bon yi te lépp àndandoo yi bon rek moo ñu ko yóbbee. police bi moom ñu ngi góorgóorlu te ñu ngi liggéey. gisoon dañoo war a dolli éléments yi quoi. war nañoo dolli éléments yi waaw war nañoo dolli éléments yi vraiment ndax ay jàmbaar lañu foo fu ñu bugg xam danañ fa xam. fu ñu bëgg a lijjanti danañ ko lijjanti. dañoo xaw a manqué doole tuuti rek waaye nag na na makki doole rek bu doolee rek dana baax. police bi maanaam dañ leen gën a conseillé gën leen a ñaax rek maanaam ñu jël seen matuwaay mais bu ñu jàpp ne dëkkin bi la ñi fi nekk di def ñaawteef yi dëkkuñ Grand Yoff dañ fi fréquenté hors secteur la ñuy jógee ñëw dëkk si Grand Yoff mais suñ ne tëll rek dañ ne waa Grand Yoff waa Grand Yoff am na ñu baax am nañ ay wàllu am na ay baay Fall am nañ ay góor yàlla mais ñëpp mënu leen justifier na nii lañ mel. yow sa bopp rek nga mën a justifier waaw loolu laay soññu gars yi rek ñu gën a bàyyiwaat xel tamit amaañi tamit ñooy dund ñoon loolu nañ xam ne àdduna bi daa jeex ba pare fii lu fi waaye def sa bopp amul benn bande boo xam ne am na finition bu rafet surtout jeunes yi tamit laay gën a conseillé ku jàpp ku jël si yoonu banditis bi na nga teel a raxasuwaat ba mu set nga deno dem jéem a doon ab góor yàlla jëm a jël say matuwaay xam ne bandi amul finition amul mucc gu rafet mucc gu rafet mooy def lu baax ku gis ne bande bu soo xool bande boo xam ne da koo tàmbale woon sa njëlbel nga xool finition yam foog naa kooku soñaan lay doon dootul am njëriñ dootul jëriñ kenn te du jëriñe soo xoolee euh, maanaam manquement de sécurité la quoi sécurité moo xaw a manqué quoi aussi loolu tamit da si bokk quoi mais soo xoolee tamit xale yi tamit nag dafay war a am respect quoi yoo xamante sécurité maanaam xale yi quoi ñu téye leen bu baax a baax parce que xale yi tamit waroo leen bàyyi di surveiller si tali yi comme ça quoi loolu. agression bi ñi ngay def ay magum jëm lañ duñu ay xale de grand. waa dëgg yàlla xale yi xale yi noonu agression bi mag yi ñoo ko jëpp. waa dëgg yàlla loo dafa am quoi mais soo xoolee léegi xale yi ndaw ñoo ko def quoi parce que liggéey bi la quoi léegi xale yi dañoo bañ liggéey léegi nit ñi daal yu bari bëggul liggéey quoi liggéey kay moom daal waa dëgg yàlla loolu dafa xaw a wàññi si xale yu góor yi. mooy loo ñàkk jom la daal parce que xale yu góor yow nga def ba si diggi doole gaay bañ a liggéey kon donc soo sàccewul gars looy def da ngay sàcce quoi nga def agression naka su du noonu quoi. mais nekkul sàngara bi ni mu fi yombee ak drogue bi ni mu fi yombee ci jënd bi est nekkul loolu mooy indi li ñu parce que la ñi nga xamante ñoom ñooy def agression bi ak sàcc du ñu ànd ak seen sago léegi ñi nga xamante baar yeeg yi nga xamante ni ak jaay euh, drogue beeg yooyu est loolu gisoo ni bi da see war a jël responsabilité Macky Sall ci boppam man mii Macky ñi ko voteloon ci laa bokk te lam ma wonoon boo ma votel ko ak lu mu ñu won tey bokkul ndax daf ñu woor ndax kaaraange bi moom bu ci taxawee suñu borom da koy saafara ndax moo njiitu réew boo xasee jiite réew responsabilité réew da nga ko war a jël ba mu ma sëkk lii ci jamonoy Senghor ci jamonoy Abdou Diouf ci jamonoy Abdoulaye Wade amul woon waaye lii am ci jamonoy Macky Sall dafa ëpp te ko waral yëpp seetaan gi du ma ne benn ministre du ma ne benn député Macky sama doom baay moom laay waxal ne bandum komi haal pulaar ti ko Macky mi woni haalde ɗum fof ko konko waɗi sinno dari ko konko woni président sénégal sinno konko omo dari to bonɗo sénégal o e, e, e grand yo fo ɗum fof allah itti ɗum mais ko konko daari sangro juuna woni ɗo haalani hen haydara agression o makko haalani hen haydara tomin komi yiɗno makko sall komi waɗinima cartam mais guila nden bonde ari sénégal foof Macky Sall xëy dara o daraane xeen est-ce que gisoon tamit dañoo xeeb liggéey comme déjà yow ñu ngi la fekk yaa ngi teg tey sa pousse-pousse di jaay ay crème glace est-ce que liggéey yi ngay liggéey nii xam nga loolu soo xoolee loolu waaw loolu da si bokk am na yoo xam ne lii lii am nga lii deux cent cinquante la kon donc gars yi dañuy xeebu maanaam soo xoolee gars yi di yor seen pousse pousse di jaay dañ lay xeebu quoi ba na ñun journée lu ñu am lu ñu yàlla xamee doy na kon donc mooy loolu ñu daal xeebu dara daal mais xale yu góor yi daal am na liggéey yoo xam ne dañoo jàpp ñàkk a jom quoi yooyu noonu maanaam amuy dara daal si ñoom amuy benn fule si ñoom quoi kon donc loolu moo tax. góor da ngay liggéey man mii di wax ak yow a laa lii daf ma dab suba gu ma xëyee fii dama jël sama taxi 700 francs laay fay suba gi su may ñibbi nii ñii defaree nii télé bi nii 1000 francs laay fay journée 1000 1700 laay fay. lu ko def sama jom du ma talal loxo du ma yelwaan pourtant samay moroom handicapé ngi talal seen loxo di yelwaan di ñaan mais man nekkul ci sama deret ndax dama judd ci jom judd ci famille bu am jom judd ci famille bu am dignité lii ma toog nii yàlla ma ko dénk samay mbokk bëgguñu ko mais man maay koo gëmal sama bopp ndax dama gëm sama bopp. di dimbali sama bopp di ci dimbali jaamu yàlla di ci dimbali néew ji doole yi nga xam ne bu leen gisee tey da ngay yaakaar ñoom ñoo ma war a dimbali mais man maay wëlbati ko di leen dimbali ci sama yërmaa ndax loolu la ma yàlla sas fii ñaar fukki at ak ñett maa ngi fi lu baax laa fi toogee ak yërmaande ak di dimbali jaamu yàlla yi ak di dimbali néew ji doole yi ak nag di daan sama doole fenuma jaay ma lu bon yalwaanu ma sàkku ma ndimbal maa ngi toog ni ma natt ma yàlla teg daal dama ko nangu ak sama fukki loxo ak juróom toog nag di ci wéetal yàlla di daan sama doole waaye nag lu ma bëgg nag ci président Macky Sall nañu sarax lillahi wa rasuli a ne do Sénégal be mbi Fuuta tampi mais Dakar Grand Yoff kadi ɓe tampi komi ñaagima tan bandam doom mbayam Grand Yoff ɓe tampi wallahi Macky Sall Grand Yoff ɓe tampi alors mi ngi noonu yéen a ko déggandoo gis ngeen ni ku ci nekk gis-gis yi xaw na cee waroo ndax ngeen gis ngeen ñenn ñi suñu yaay booy yi ñoom nee nañu wàllu yaan si la maanaam ñi nga xamante ni dañoo ñëw te dëkkuñu Grand Yoff ñoom ñoo waral lii ñenn ñi tamit yaa ngi dégg ñu ni euh, nit ñi jeunes yi dañuy xeeb liggéey yi looloo waral euh, ñuy dugg si doroog beek yooyu parce que dañuy xeeb ay liggéey yu pousse-pousse ak yeneen mbir yi yi nga xamante suñu mbokk pël Fuuta yi ñoom koy def alors dégg nga tamit ku wax wàllu yar lépp mi ngi ci euh, waxtaan gi mën nga ko am fi nga xamante ni moom mooy Dakarnet yow mi nga xamante ni sa koñ sa quartier sa ville dafa am ay jafe-jafe boo ñu woowee dinañ fa ñëw def fa reportage xool lépp li nga xamante ni moom moo fa am comme jafe-jafe ak Dakarnet dara du leen rëcc ci réew mi